waaw li xew mooy tey euh, Bougane Gueye Dany dañu ko convoqué ci euh, fi nga xam ne mooy cyber sécurité euh, li nga xam ne am na fi kenn xamagul nag yan motif moo tax ñu convoqué ko en tant que reporter foog naa comme ñi nga ko defee yeneen reporter yëpp moom mu daal ñëw ànd ñi nga xam ne ñoom ñooy ay militant wam ñu jógee fi nga xam ne moom mooy benn séminaire ñëw comme que équipe boobu ñoom ñoo fi jiitu woon ñu ñëw bi ñu ñëwee itam gis nañ leen fa dëgg yàlla xam nga yàgg naa leen couvrir mu nekk ñu ñuy ràññee lool am na ci kenn koo xam ne euh, moom mooy maire bi di Aïda Seck euh, mu ngi fële moom mooy responsable des femmes bi nga xam ne ñoo nekk Kër Massar bokk na ci ñi nga xam ne dañ doon saaga dañu traité de prostituée donc mu mel ne ñoom dañ leen ko sant parce que bu ñu nekkee ci état de droit tey yaakaar naa ne bu fekkee sa leader dañ ko convoqué li la wax mooy nga ñëw accompagner ko mais mu fekkee dafa bëgg ñëw ngir wane wala roy ci beneen leader boo xam bu daan ñëw naam ko ñoom ils sont en petit nombre waaye dañ leen koy nangul bu ñu ñëwee itam amuñu problème ak ñoom amuñu problème ak taskatu xibaar yi leen wax mooy bu fekkee nit ki neexu la wala muy wax yow intéressé wu la nga toogee ne mais dina ku mën a dékku président ma Sall dékku ay nerf bi fi nekkoon dékku police ak gendarmerie du ay simple militant ñoom ñoo ñëw tey ne la euh, fii ngay wax ak fële doo fi wax dañoo ñëw pour liggéey te fii ñu taxaw amul lenn loo xam ne dañu fay jógee euh, Bougane Gueye Dany nag moom mënuñu ma mënu ma yàpp

ànd ak ñoom moom moo leen fi indi te ku ci nekk oto nga jël jóge ci këram ñëw wax naa la ko léegi muy responsable des femmes mais également am na yeneen jeunes yoo xam ne man xam naa leen ku ci nekk xam naa sa tur dinaa def plainte mais buggaan ci yoo xam laay plainte parce que moom moo leen mën a identifier. boo mën a identifier mais gis nañ tamit est-ce que yaa ngi xaar. boo egsee fii di nga fi fekk lii waaw xam nga toppandoo moom dafa bari façon ñoom dañuy def dañu mel ni dañu bëgg comme ni Pastef daan def di taal pëne peut être bu ñu woowee seen leader wala ñu xam dañ koy def mais safewul parce que déjà ñoom bariwuñu amuñu stratégie lii yëpp ñu koy xaar ndax te teewul dem nañ fi Ziguinchor dem nañ ak feneen te du lii moom mooy tax ñu découragé fi ñu taxaw pour ñëw ut si information fi dañu taxaw bi ñu la bëggoon song lan nga jàpp ne ah peut être que dañoo tiit rek xam mu gàddu saagam ñëw te mën na mën nga xam ne peut-être doo ko gisaat mën na am loolu itam tiitaange la. merci Mati Mati sànni si deux Mati lépp sa kanam la amee. collègue sa xarit ngoone. lan ngay wax ci biir centré wax centré wax allez-y allez-y Mati. bon déjà situation bu may déplorer la bu ma metti nag de fond ndax euh, li tax mu metti ma mooy. ñu doo xëyoon dem liggéey déjà dañu convié woon benn atelier ñu dem ci wàcc ñëw fii nii journaliste de terrain foog naa ni boo koy wax dootoo nekk fii nii di tudd kenn te tudd boole woo ci Ngoné Saliou Diop ku mën a dëkku ay bal dëkku ay grenade lacrymogène du ñëw wuyu ji convocation nga ñëw taxaw moom moo lay nekk fi di la ébranlé si taxi bi la nu wàcc taxaw am benn waay bu ko rok bu ko xàmmeli ko daal di koy woo ne ngoone Ngoné Saliou taxaw di jàmm sante ak moom di ree y a un gars habillé en t-shirt jaune noir je le reconnais très bien te je ferai tout ko mérito jékki-jékki wax ay baat yu ñaaw naan ay dulkat yaa ngi nii caga yaa ngi nii kii du maanaam may ñu sax ñun fu ñu taxawee wax jëluñu leen sax au sérieux en parce que on était en train d'avancer après si lañ jël seen sachet d'eau yi jël ko bënn ko dina ko sotti ba pare jël seen saaga yi topp ñu mel ni comme ñuy rëbb ay dëmm mais qu'est-ce qu'on a fait quest lan lan leen def defuñu leen dara danoo wàcc rek ba pare ay maire yu tekkiwul dara ñoo xamante ni ils ont raté leur vocation et di leen dooleel ñoo bokk si saaga yi dinu saaga dinu wax naka sudul noonu ba pare ñu taxawaat fii war a def suñu déclaration de presse ñu ne duñ ko fi waxee parce que nee na ñoom du ñun duñu rétablir la vérité alors que ñun ñoo ko dund ñoom ñooy kan ñun ñun nous sommes bon temps juddoo si dëkk màggoo fi yaroo fi ay nit yu tekkiwul dara je si on les a payés la journée wala ay militants la je mais ay nit yu ñàkk fayda taxaw fii nii naan ay dañuy utal sens interdit dañuy nax seen bopp ils sont pas ils ne savent même pas à qui ils ont affaire ndax lii nii ça va pas ndax buñ ko commencé ñu bàyyi leen ko mu jàll beneen yoon dinañ ko jéem a defaat te wallaahi li ma leen wax rek si jig militant passé fii jig si Ousmane Sonko xaajul ba di si jig ndax ñoom danoon doon xeex dëgg te ñii ay naafeq lañu yooyu ñu ñu convoqué nit xamal lu ko convoqué journaliste yi ñëw di yi wax nañ ñu lan moo xaw biir cybercriminalité bi ñu ak ñu ngi euh, agressé Ngoné Saliou euh, Diop ak Maty Sarr Niang loolu moo ma yëkkati on est dans quel pays Bougane Gueye Dany moomul nit ñi ay militants am moomul nit ñi quelques de ces militants laay wax parce que nag boo xoolee fii journalistes yi ak caméraman yi sax ñëw fi ëpp ay militants wam moomuñu nit ñi sëgam Ousmane Sonko ba muy jàmmaarloog Macky Sall ñun on était sur le terrain di naan lacrymogène ñu naan ñu dinañ leen tëj kaso taxuñoo noppi ci lañ gën a mën a foncé nekkul Bougane Gueye Dany moo ñu teree def suñu liggéey man nag fekkeewu ma ko waaye damaa jël dégg yëf yi seetaan vidéo bi bàyyi li ma doon def beneen liggéey laa nekkoon damaa sos sama daal da ñëw parce que loolu duñ ko seetaan Bougane moomu réew mi nekkul ni dañ lay wax yaay bàyyi kër dof yi rek nga bëgg ko moomale sa bopp c'est pas normal nit la na xam ne yëfi nit la war a def te nag il aura affaire à ces gens Ngoné Saliou Diop Macky Sarr ñaar dinañ dem porter ji plainte parce que identifié nañ ñi nga xamante ne ñoo def jëf jooju ils auront affaire à eux incha allah mais sax maa ngi dégg naa ne bugaan bugaan bugaan lan la ci da nga jàpp ni dafa nekk ci ginnaaw bi waaw mais ay ay ay militant wam lañ on peut dire que c'est des nervis parce que li ñu def jëfu nervi la li ñu def jëfu nervi la attaqué nit comme ça bu ñu nekkee waa kër Sonko ñoo tay ñoo tay vous n'avez rien à dire c'est pas à vous de nous dire suñu liggéey nan lañ koy defee moom moo leen dëkk bi moom moo leen dëkk bi da ngeen muñ opposez-vous da ngeen di muñ force la ñuy liggéey force la ñuy liggéey moom moo leen dëkk bi vous n'êtes rien vous n'êtes rien. waaw. mais xanaa lu mu conférence de presse il a dit clairement que je n'accepte pas. que ñuy utiliser ay chiffres ñu utiliser wul il l'a dit non mais il l'a dit xam nga jàmbaar xam nga ñun xam nañ état nag ñun xam nañ état comment comment ça se passe mais yooyu yëpp amul ñaari nit rek la ñuy xaar pour xool quel sera le comportement le ministre de la justice et le procureur ak li leen Sénégal waxal yëpp ñu ngi leen di xaar ci dossier yi non mais ñu ngi xaar ñun ñi xam nañu ñu ngi toog di xaar jàpp nga ni Bougane day déranger. mais ñoom daal sa waay. ñoom loolu la ñu wax quoi depuis suba léegi les militants que Bougane dafay déranger régime bi fi nekk. ñu ñun ci dëgg lañ nekk. Hmm. politique bi c'est autre chose mais ci dëgg lañ nekk. Hmm. ñu ngi toog di xaar. comment ça va se passer mais par a jël logique mais déclaration wu lan la logique Sonko logique Samba moo ci yemale. c'est pas ça qui est important. ce qui est important mooy réew mi am na fu mu toll woon ñëpp di ko xeex ñëpp di ko ne di ñu yoon tey nga ñëw ci nguur gi demaguñu fenn tu convoques autant de personnes tu es d'emprisonner des gens à ce niveau sans des chefs d'inculpation valables il faut pas créer des chefs d'inculpation pour emprisonner les gens et c'est ça le danger. sur le cas de Kader Dia. non Kader juum na. on le reconnaît. li mu wax waru ko wax. loolu d'accord nañ ci. Mhm. mais nag yërmande am na. nit mën na juum defaraat waxam dëgg-dëgg dañuy wax te yàlla tax mais aussi bu ñu fàtte ne Guy Marius Sagna am na lu am na policier bu mu boole. ministre de l'intérieur rafetlu lii Guy Marius def gis ku nekkul yoon mu mu boole ko waa donc moom de certes am na lu mu wax ñaaw ñaawlu nañ ko mais li lii Guy Marius Sagna wax nag léegi lu ñu ngi ko wax donc man je pense am na yenn problème yoo xamante ni jaru ko. on a des urgences urgence yi mooy situation réew mi nous vivons un cancer économique dans ce pays actuellement personne ne sait ce qu'il doit faire soyons sérieux et maintenant nañ jéem a topp yi nga xam mooy urgence mooy problème mu réew mi ñu jéem ko régler te bàyyi détails yi du ma vett venant ce régime là mais bu ñu xam réew mi fi mu jëm te ñaanuñu ko yàlla cest bu ñu sañoon ñoom ñu réussir mais lii du leen indil réussite ay problème ak leen di indil Et c'est dommage pour ce pays. Merci beaucoup.